waaw jërëjëf jërëjëf baal nañ la àq nuyul ma waa foofu ñëpp bàyyi ko foofu moom day dof dof nekk ba Amérique pays en couleur man ma nekk fii pays noir blanc ah nga tabax kër gu mel nii tëj ko ni ma njaay sax ñetti fan ma ma si kër gi comme day yebaate rek ba ko foofu yàlla bu mu ñëw dafa lang rek moom comme dafay yebaate rek problème bi daal leen la sama jabar bi ko ma am kër te moom ma kër gi loolu laa war a lijjanti nijaay am nga gande sa xarit bi da laa romb ndax ba nu toxoo ba léegi ñëw fi mi ngi noonu de xaram bi de lay dàq man de sa bi jaaxal na ma. xam nga yow nag lan la sa publicité yi nga a bàyyi foo dem suñu kër gi suñu kër gi suñu kër gi man kër gi surprise laa la ko defal waaw bañ kenn yëg mën nañ toxu nii dugg a xam nga jël nit ki xam fi nga jëm te rawul la yàgg fi nga jëm yaa xayta mu na xam ne na nga soqori na nga soqori kër gu mel nii bu taaroo ni amuy fëllar bi boo taxawee tey ni yàq moom waxul dëgg waxul dëgg yow maa yow ñuy toog grand place ba tëgg jour dërëm yoroo ko dërëm kafe sax man maa la koy jënd pour nga naan. man ne sama nijaay mii jaaxal na ma yow di nga jënd kër gu mel nii tabax ko ba mu mel nii dina bëtt nit ñi nii rek. ba nga amulee fu ne dugg nga fa di luye xanaa nit kay lii la doon ñaan dund ba am këram. bul la yow sa xar mi daw romb fii ba du lekk fa la di nekk si biir kër gi tëpp la bàyyil dox bàyyil dox démb la woon korité tey feer la kenn wu si marché ngay dox taxawaalu nii rek. ku nekk yaa koy déyal quoi man nee naa la ba tay du mu pullu rakk ma ne métis la yaay muy pullu mais papa naari la papa naari la man ma jógee gànnaar ba ñëw fii pour liggéey lay sama yoon si seen fet lay sama yoon xaar bi lu muy lekk wallahi da du ko lekk xaar bi du lekk ñax du lekk ñax ripaas lay lekk dugub bi ki mboq ki bele yow nga nekk fi nga toog fi tey jii nga ne na amee xaalis na nga toog si kër gi bëggul kenn gis yow te yow sax nga nekk grand ma lay lebat farox caay yow kat sama nijaay dangaa baadoo la kii nga xam si dibiteri bi nga daan nekk suba ngoon kenn mënu leen teqale. gis nga yow dangaa soxor waaw te yow sa xeet yow kese yaa soxor xaw ma pël nga ne xaw ma naar mais bu dee pël yi amuñu problème bu dee nga bëri waaw man li may toog grand place bi yëpp maa ngi tabax sama kër waaw c'est que kër gi loolu yëpp weesoo saxaar mu romb fii yëpp dama lay dimbali rek bàyyi ko fi chaque mu la jox nga dem. waaye yow nijaay moom waxu tabaski teel na di. wala yow da nga koy natt rek démb la nu korite di. yaa xam ni wutali morom man du ma sa morom yi man naar du sa morom bi romb fii nga ne man naa la koy jox naka am njëgu ne xar bi amoo njëgu bi bopp xar bi sax wallaahi amoo njëg bopp xar bi rek amoo njëg xar bi ngi jar cent cinquante mille francs nga ne naa la ko jox sa deux ma ñëw soo sa deux jours ma sama xaalis waaw ma gis na nga togg say ginaar nga toog noonu ngeen yow patron kañ nga nekk patron. garaaw loolu du problème su ma jugee léegi man dinaa ko takk waaw parce que deux jours ma jox la léegi mën nga dem. yow lay wax ni ma dem ma dem demi problème yi xanaa gis ginaar aja bint nu mu kroofe xanaa gis nu mu kroofe ak nu mu dooree nii may toog ma lekk si ginaar yi ba suur defar ma attaay lawul deuxième taas après sax mën na si teg ji rek ñuy waxtaan xam naa tey sax nga toog fii si taatu garab bi ñu dee tegal ginaar ngay dàqe chaque jour si forox caay bi ma lay jox ay bàq. ay bàqu xar ak bàqu bëy di la ko sol nga ne lan sama ginaar yi ngay wax ah boo si lekkee de dama koy dagg si xar bi waaw man moom sonnatuma sax waaw wal si lekkee ma dagg ko si xar bi